Pape Matar Sarr Papito démb toj na Angleterre ci championnat boo xam ni ah, daanaka gayndeek sénégalais gi ni ñu leen annoncé loon ah, match boobee nga xam ne ban ko annoncé ah, daanaka couleur yi la commencé moom mii di Pape Matar Sarr Papito démb bi muy dajee Crystal Palace vingt-huit minutes la football maanaam ñaar fukki minutes ak juróom-ñett yoo xam ni yebbi na ko ca terrain ba waaye ba mu ca duggee la jaxase carte gi ki nga xam ni moo nekk ak Minson la commencé xam fi muy taxaw affaire yi rëbëjoo mu koy lijjanti ci digg milieu terrain bi di ko jalal di ko jox gars yi match bi di neex di jaxasoo supporters yi di yuuxoo ñi nga xam ne ñoo toog ci seen kër sax di ko seetaan di yëg ni ñi ngi seetaan match boo xam ne bu mucc ayib la gonek sénégalais gi def na match boo xam ne ah, bu am solo loolee tamit am solo bu baax a baax ci ginnaaw coupe monde bi nga xam ne yebbi woon na ko ah, te tous tasar daanaka ah, boobee mu jógee ca coupe du monde ba li nu doon yaakaar lépp Aliou Cissé joxu ko ko ndax xam ngeen ni gonek sénégalais gi li mu denc ci tànk yi bis bu ko bellee bu nu ko mayee temps boobee dina toj dëkk bi loolee nag amagul mu toll nii euh, barki démb euh, coppatil nañ ko toll ci fukki minute tey ñu coppatiwaatal ko ñaar fukki minute ak juróom-ñett loolee daanaka bu ñu ko defee noonu entraîneur Tottenham bi bu yàggee euh, danay dugg ci sëmbaxloo ba commencement ba nga xam ni daanaka mooy milieu terrain ba loola tamit Hugo Lloris mi nga xam ne mooy gardien ba kontaan ci rab ci ki nga xam ni mooy ndaanaanuk sénégalais gi nga xam ni tàpp na ko tàpp tëppoo bég ci moom mu wane ni moom mii gone gi xel mi ngi bëgg a dal numéro 29 la takkoon démb beneen information Barcelone euh, tëcc na équipe bi nga xam ni mooy Intercity ci li nga xam ni moo nekk Copa euh, loole ñeenti euh, bal ñett la ko fëgg ci taabat yi gone Barcelone yi xel ngi bëgg a dal ginnaaw championnat bi nga xam ni euh, mi ngi bëgg a euh, songu a songuwaat ñoom ndax fi mu toll nii euh, soxla nañ fa ay victoire victoire yi nañ ko denc ba li nga xam ne mooy championnat bi ñëw beneen information Bellingham nga xam ne daanaka moom doomu Angleterre la marka yëglekaay galgal yi nga xam ni Real Madrid mi ngi koy rof galgal yooyee Real Madrid tayiwu ci benn yoon ñu ngi ciy ñëw ci kanam ci xëtu yaato yaatu